waaw traitement à domicile bi yombul xam nga lu tax traitement à domicile bi yombul lu ci gën a jafe d'abord mooy nit ki mën a respecter mesure barrière yiñ ko sant ndax bu fekkente ni yow da nga am feebar bi am doom bu ndaw boo ñëwee sa doom mënoo ko wax yamal fee mag ñi mën nañ leen wax yamal fee wala ñu xam yamal fee waaye xale xamul loolu donc beneen bi ci des tamit mooy nga nekk ak sa njaboot bëgg teju ci benn néeg wala nekk ci benn place boo xam ne mi ngi ci biir kër gi ñoom ñu ne ci biir kër gi duñ la gis duñ la jage duñu waxtaan ak yow leneen ak leneen donc loolu aussi dana jafe loolu mooy jafe-jafe yi nga xam ne dafa jëm ci kii faju beneen jafe-jafe boo xam ci ñun la jëm aussi mooy que ni léeg-léeg nga commencé war a nit ki te du coopérer du coopérer maanaam du ànd ak yow bokk bëgg-bëgg wala nangul la nangul ba ca war loolu aussi dañ koy gis léegi-léegi nga commencé faj kenn wala nga commencé ko ak kenn dem ba mu yàgg la nga doon jokkoo ak moom muy numéro téléphone ba dagg wala nga toog mu yàgg nga soxla ko wala soxla li nga koy sant du ko defee ni nga ko bëggee loolu aussi mooy jafe-jafe yi nga xam ni moo nekk ci traitement à